maa ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant wax leen ni tey dama am mbégte bu mag parce que sa camarade Mademba Sock ki nga xam ni nekk na pionnier du syndicalisme autonome indépendant jàmbaar ju mag jooju moom moo am donc mu ni ma naa ko représenté wax ci turam donc su may wax dama koy wax ci turu Mademba Sock secrétaire général de l'UNSAS je que, maître de cérémonie M. monsieur Atoumane Diaw nga xam que bu ma peux wax ay baat yu ndaw français bokk de éducateurs formateur syndical je koy enseignant au Sénégal sargal victoire di wax ni aussi nañu continuer union bi continuer unité bi parce que loolu moo nekk facteur de succès euh, di euh, féliciter comité d'organisation bi pour li def mais di féliciter aussi Modi Giro, mooy président wu confédération maanaam coalition bi bi tax central syndical yëpp tase fi tey wante aussi bëggoon nañu lu weesu central bi maanaam lu weesu euh, def premier mai ñu def leneen maanaam ñu gën accompagner syndicat de base yi ci seen lutte sectorielle yi ndax lutte yi war a mën a bañ a mën parce que lutte sectorielle baax parce que syndicat li tax mu jóg mooy bëri syndicat ci arène lañ koy xaar xaar ñu ko ci tribune reporter mooy nekk ci tribune wante nag syndicat de base yi bu ñu àndee nekk ci ay centrale syndicale bu ñu cette xeex centrale syndicale yi ñu ngi leen di encadré lolu ñu ngi koy rafetlu wante seen loxo bu gënoon bar lutte yi danañu gën a gàtt loolu nekk na lu nga xam ne waroon nañ ko wax à l'endroit de monsieur Modi Giro pour que les centrales syndicales mën a aussi continuer ñu mën a intensifier lutte bi euh, li nga xam ne nag moo nekk ci pacte social bi am na solo pacte social am na njariñ parce que pacte de stabilité la wante nag revendication sectorielle yi li nga xam ni camarade Cheikh Diop da koy wax souvent le passif social loolu bu fekkee ni soldé wuñ ko toujours dañuy dans des conflits et nous des di conflits ba pare nous dans un développement n'est pas un problème bu mak li ci am coalition bi dina parce que centrale pour le salaire décent pour l'augmentation du pouvoir d'achat pour la protection sociale je pense que loolu moy njariñu syndicat loolu moy une centrale syndicale une coalition centrale syndicale wante bu dee centrales yoy la juroom yoy la représente presque 80% des travailleurs ah, la peur doit changer de camp normalement. La, peur doit être dans l'autre camp, dans le camp du gouvernement ou dans le camp des employés. C'est ce que je veux dire. bi war na je veux taxaw war na que je veux li aussi bi may ñëw je secteur santé secteur santé parce que grève grève grève 72 heures de grève dañuy gëssam, dañuy gëssam, dañuy gëssam. dañuy gëssam, dañuy gëssam. lan lañuy gëssam? Moy accord yi nga xamni accordu 2014 la dans tout le secteur surtout le secteur de la santé accord yoyu ñu matérialiser ko ñu bëral ko dañuy gëssam pour le régime indemnitaire parce que mënuñu dans di régime indemnitaire bi danañ ko défar bu mu jàkk parce que ñi fi newoon ñoo ko 2012 ba avons ñu nan dañuy def étude dañuy def évaluation te dara du sotti loolu mënul sotti dañ ko gëstu mu parce que centrale syndicales, yi bu ñu àndoon système de rémunération de la fonction publique dana mën sorti. sotti bu ñu àndoon ñoom ñëpp ci augmentation SMIC nga xamni bougé depuis presque l'époque coloniale dina am solo bu ñu aussi pour que le point indiciaire évolue je pense que dina am solo li ci am solo nak aussi ci secteur de la santé moi, les camarades qui ont xam nous mënuñu leen camarade JICA camarade Cobra mais voilà, ñooñu nous, ngi saluer tous les camarades handicapés parce que nous, ngi ici les handicapés aujourd'hui doivent être à l'honneur parce que fête la wante nag bay nañ suñu war ci loi d'orientation sociale module une carte d'égalité des chances ba légui bëgg nañ carte d'égalité des chances mu wees simplement couverture maladie au niveau des structures de santé car d'égalité des chances, c'est la gratuité du transport dans le public. C'est le tarif réduit dans le privé. Car d'égalité des chances, c'est les bourses gratuitement. Car d'égalité des chances, le transport aérien fluvial, demi-tarifé. wante ba le ministère de la santé mon chef hologramme am wante un secteur yëpp kenn defu ci dara moo tax des chances bi ñi ko presque santé lay doon te ñooy même bu ça, dara sax waroon nañu leen jël parce que indigent gouvernement moko jël en charge wante nag su ma jógee si handicapé ñew ci CMU CMU nak li tax ma ci ma ci taxaw touti moy mu CMU ay prestation la mëno am prestation sans prestataire mais infirmier yi ak sage-femme plan Cobra mais ñooñu ay prestataire lañu nit ki nak mënul liggéey juroom benn weer juroom ñetti weer doo ko fay te nga encaissé ñen fukki milliards ak ñeent pour programme bobu mëno ci génne 9 milliards pour fay leen seen salaire

le scandale bu mag la si réew mi bu ñu bu principal ak li ñu am jox ko ci il faut que ñu mais aussi contractuel aussi ñu parce que nous sommes dans un secteur mais la santé communautaire suñu xale yi nekk Bambey ñu ngi fi dañoo demoon ba fële di ñu sommes foogoo ba ñu ngi fi ay yu euh, université Bambey je suis lijaasa amaguñu koor ba léegi te parce que santé communautaire la santé communautaire c'est les soins sans le médicament santé communautaire c'est le les déterminants de la santé avons la santé communautaire jël ko def ko cellule bu ndaw alors que santé communautaire war na travail la des euh, santé communautaire nous avons les responsables départementaux des services départementaux de la santé de l'action sociale parce que nous sommes am camarade maa ngi bëgg a xaabaabal maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp di sargal jigéen ñi